yu bëri nag am na ci li nga xamante ni moom moo di dundin bi ak nekkin bi rawatina nag lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi xëj na bu ñuy wax constat bi ñu njëkk a def rek mooy euh, xam ngeen ni dañ daan xëy lundi ba samedi di titre ay accident euh, tali bi di rey lu dul jeex euh, donc tey constat bi li ci neex mooy que gis nañ ni que accident yooyu la wàññeeku na ak yeneen ci ay mbir yu nga xamante ni am na waaye itamit ay mesures yoo xamante ni auparavant buggoon nañ ko jol jàppoon ni mënul nekk Euh, xejna tay couvre-feu bi wané na ni euh, mën na nek euh, ñu dem téwlu waxtaan bi ñu sék ak Cheikh Oumar gay mom moy directeur des transports routiers bis bu nek boko don xol en moyenne ñaari nit dinañu faatu ci Sénégal ci walum accident mhm. ci jamono bi mu toll nak nag muy jamono coronavirus bo xolé mobilisation bi nga xam ni àddina bi yëpp def na waxuma la sax àdduna bi waaye au plan national nga xam ni euh, corona bi li mu faatagum ci nit ci weer ak genn wàll wala ñaari weer xëy na ci juróom benn nit lay toll mm-hmm. loolu boo ko doon gam-gam leen li accident di rey ci weer wala ci ñaari weer di nga gis ni euh, multiplier nañ ko par dix ou par vingt kon mobilisation bi ñu am ci corona bi yaakaar naa bu ñu ko amee buñ ñu ko amee mobilisation bu ñu toll ci wàllum accident yi euh, dina dina baax te loolu si jàngat lay doon si jàngat yi lay doon après. ci accident yi nga xam ne day indi faatu bakkan ci àll bi lay am. ko plus de 80 pour cent accident yi boo jëlee téeméer donc euh, juróom-ñett fukk yëpp daanaka ci race campagne lay am mooy si transport interurbain bi. forcément buñu arrêté transport interurbain bobu di nga gis ni accident yoy doon am fofu dotul amati ko day melni ni déjà am nga beesu de facto 80 des accidents mortels donc boy xol boko jëlé 1 premier février ba légui liñuy comptabiliser ci accident mo am di fatu nit matul juroom té boko doon euh, comparer donc at yi wessu wala jamono normal donc ci ñaari wër rek da nga daan gis ni lu mu dee dee dee dee am nga euh, ñaar téeméeri nit am nga téeméeri nit yu faatu ci wàll woowu. balaa boo gis wala mosu boo gis dafa am njàngat yu yoo ci war a jëlee te njàngat yooyu mooy mesure yi nga xam ni tey euh, ñu ngi ko daan laam laame booba ñu naan mën na nekk ak mënut nekk tey gis nañu force mën na ne parce que jamono ji wane na ko ba tax na euh, lu mel ni aussi tëj gaaru routière yi. ci benn waxtu waxoon nañ ko fi ni bu bu 21 heures jotee wala 21 20 ñu tëj gaar gaaru ceer yi wala 18 heures 19 heures ñu tëj gaaru ceer yi mais tey si tey amul benn gaaru ceer bu nekk si dëkku Sénégal bu ubbeeku interurbaine yëpp tëj na leen. Cheikh Omar Gueye euh, euh, xaw na yàgg tuuti sax bi ñuy seqee waxtaan ak moom mais